bu dee tawat ji day bare day day aaye dajaloo bu bari loolu kon mi ngi jëm ci ñi nga xam ne dëkkuñ nga xam ne dañuy dox daje waaye ñi bokk génn kër moom kon xëy na te tawat ji dugg fa te ñoom génnuñ demuñ fenn mën naa am kon xaw xëy xaw xëy na xaw war nañoo mën a mucc ci loolu su dee ni ñuy waxe nag ci tëjum jàkka yeeg jumaa yi loolu moom njuumte da ci am loo xam ne képp waxuma la waxuma la ku xam dara ci lislaam waaye boroom xel mu sell rek ku ko ku xalaat xam ne ni mu demee xel nanguwu ko niñ tëjee jumaa yi ak jàkk yi ndax bu fekkonte ne ca njëlbeen mbooleem yi ñu waxoon ne dañ koy tëj tëj nañ ko mën naa am sax jullit ñi mën a muñ lu bari ci tëjum jumaa ak jàkk waaye lu dul jumaa yeeg jàkka yi ci barab yi ñu daje rek dañ ko organiser jumaa yeeg jàkk yi nag ñu ne nañ ko tëj loolu moom moo lay xamal ne kon euh, bu fekkente ne ay pexe amu ci ña ko deflu moom juum nañ ci seen décision bi ñu jël wala ñàkk a xam dal na leen loola nag man yedduma leen ñoom wax dëgg yàlla ñoom yedduma leen ndax ñoom ñoom lañ jàng xam ko rek ci la ñuy dox ñi nga xam ne ñoo njëkk a ci ne nañ tëj jàkk yeeg jumaa yi te di leen tuddee association des imams ñooñu it am nañ njuumte lu mag a mag a mag luñ def ndax tëj gi moom waruñ warutoon a bàyyi ko ci seen làmmiñ mënoon nañoo seet nuñ ko organiser ñu réclamer loolu. waaye nañ ko tëj moom loolu njuumte la jàkka yi mënoon nañ ko organiser noo xam ne nit ñi dinañ julli waxtu yëpp danañ julli ajjuma te lañuy ñuy wattandiku mën na faa bañ am. boo demee ci banque yi dañ ko organiser ña ngi ciy dugg man bii fi xewee dem naa ci banque gis naa nam demee ay banque yu wuute gis naa nam deme boo demee ci marché yi jéem nañ ko organiser dëgg la marché yi moom dafa bokk ci daruraat yi euh, léegi. Euh, xëy na mbooloo yee daje ci marché du daje ci jàkka ji waaye nañu organiser marché war nañ ko mën a organiser noonu jàkka ji bàyyi jàkka ji ñuy julli waxtu yëpp nag boo demee ci yeneen barab yi noonu dem na sax ba ci daanaka ni ma koy waxee boo demee ci palaatu télévision yi nga xam ne yaa ngi koy seetaan mbooloo fay nekk dañ ko organiser rek waaye léegi ñoo ñoo fay nekk nag nga xam ne fexe nañ ba organiser ko nañ bàyyi jàkka yi ñu organiser si ñu organiser seen bopp te julli. xam nga nguur dafa doy nguur dafa doy waar nguur moom. dafa bokk ci lim gën a bañ digle am ku lànk day jàpp ne maanaam kooku da koo xeeb léegi nag jàkka yi ni nit ñi di fippe di dem ci jàkka yi ñoom dañoo gis ne nit ñi dañ leen a xeeb wala dañoo nanguut a wecc seen digal ñoom it ñu bëgg a jëfandikoo seen doole ci kaw nit ñi te fekk nit ñi xay na seen diine moo leen toll foofu seen diggante ak seen boroom waaye du ceegi na ñoom la nguur aayeeg lam aayewut moo leen intéressé yim aaye yëpp bàyyi nañ ko te coowuñ ko waaye nag mbirum kooku mbirum yàlla la du mbirum nit mbirum yàlla la du mbirum nit ku taxaw sa digganteek moom nag am nga droit jàmmaarlonte ak moom kooku mbirum mbirum mbirum mbirum pas-pas la jaamu yàlla loolu moo tax yàlla bindu ñi moo tax mu indi ñu fi kon ku bëgg a dox sa digganteeg loolee moom moo nekk ci njuumte ñoom ñoo waroon a bàyyi wala boog ñoom dañu waroon nañoo consulter kilifa diine yi am ak ñoom jataay laaj leen seen xalaat ñu xool daal nu ñuy organiser jumaa yi nu ñuy organiser jàkka yi ba mbirum jaamu yàlla gi moom mbir mi du ko laal waaye nag jekki-jekki nañ tëj jàkka yi nañ tëj jumaa yi loolu daal moom mbir la moo xam ne moom day na war loolu